pasungok. Jaljar bubu. Wow wow. Basgal jo nange ijat. Eh pasungok. Wow wow. Eh eh eh. Bass nee na na gaaw tey amul temps Bass mu ngi bugg a miin Kaolack Néew bu yàgg jàll na Néew bu yàgg jàll eh Fils Katy jël na ko jël na Jogoy Jogoy daan wala eh Fils Katy daan na Jogoy Aja Toubacouta Bougou Saloum a ngoog Aja Bougou Saloum a ngoog Toubacouta Bougou Saloum a si boo jan mega Kaolack eh eh Bougou Saloum a ngoog boobu Saalum borom jamono le champion d'Afrique Yalla Sirik ndeysaan gaay nee naa leen bu leen fàtte lamb Zambro TV le 18 novembre incha allah ñu tegal mbëggeel nag ak 35000 palmarin lay xewee animation Mbayang Loum ak Babacar jam peeg ya ngoog hee Latir Gueye Modou jam peeg yi ndeysaan première apparition de Modou jam peeg yi depuis Modou Diamteri ay baratis la la Modou Diamteri say baratis la la entraîné Modou Diamteri ndeysaan depuis trois mois d'absence Diamteri ba ndeysaan ak Modou Fibla ndogu war na ko ndogu de Planty wu làmb yëkkati da koy daan wala Planty Planty eh Modou Modou ci sëkkati ci sëkkati ci sëkkati lam na ko eh Modou daan na fi sëkkati aca Boy Faye a ngoog Boy Faye a si Bojande laata nga doon Boy Faye a Kaolack eh boy Faye ngoog boy Faye samp yamba jën ndeysaan Sikane Faye bi mu ngi koy sotti ay galaaj Sikane Faye bi mu ngi koy sotti ay galaaj yi ndeysaan baax ya dem moo ñaay moo jël fim laa de moom boy Faye jël ko si koom sa la mele ndeysaan nee naa leen temps yi boy Faye mu nga si temps yi day nar rek moom boy Faye waye gaay neena len bu len faté suñu lamb ji lamb sam ko TV le 18 novembre incha allah fële ca ma ngay ngalu ñu tegal mbëggee nak ak 35000 animation mbay moom lay doon babu gang eh Boy fay ndeysaan Boy Faye engagement ak détermination la ani tay dafa ñangal de eh Boy Faye borom demi saison bi leen saison bi mu de Boy Faye de naxu Thank you. animateur na na gaaw na gaaw ndeysaan troisième round bi diggante Diassy Peul la ak Boulo Blanc Diassy Peul Boulo Blanc Diassy Peul ne nga ñago Boulo Blanc daan na Diassy Peul Water. combat préliminaire ordinateur eh eh ordinateur daan na ko ordinateur daan na ko. bisin jël na tànk jël génnaat na ca délégation Ousmane Diouf nag gis naa si Moustapha Faye président parti club Brother national eh, daan naa nga baax. Touba Kouta indi lu ëpp li ngeen indi la ndax yi day bëgg di répété chaque année dañuy répété édition yi distance carré préparé yi déwén da ñëwaat comme invité bi Cheikh Ousmane danañ ñëwaat comme invité d'honneur yéen ñëpp suñuy invité d'honneur ngeen doon ndax loolu dañ koo dund ak yéen dund ko suñu yaay ndax Ndeye Fatou production doomu Ndeye Fatou yi ñoo ci nekk ñoom ñoo koy organiser kon ñu ngi leen di bu baax yal na yàlla yokk. waaye tamit am na doomu Ndeye Fatou bi takk soxna su ko jëyee ñu ñu baal tamit am nañu président fan si kër Ndeye Fatou ngëriñ waaye day takk jabar suba day bañ ko kaw waaye dinaa ko yëgle kuy takk jabar dañ koy yëgle. <laughs> léegi nag buñ fi jógee tamit dañuy dem woo ki nga xam ne mooy Cheikh Taka Diouf. Biram Mbissine Italie Cheikh Taka Diouf mu nekk ki xam ne mooy. Biram Mbissine a koy génne saagu yi. ak un D D15 ah.

Italam. Hei, hei. Pegang besi nak Ital, pegang besi wong no kondom. Pegang besi wong no kondom. Pelanti, bukai bukat, bukai bukat. Hei, hei. Kat kapi, kat api amul. Genar na jadi. Hei, hei. Pegang besi nak Ital. The vertical says. wala zongle lay zongle moo tuba moo itel itel mi neexul affaire de Birame eh, eh. Mbissine daan na itel Birame Mbissine daan na itel aja bismillah waat na diggante Modou Faye ordinateur la ak Boy Faye ndeysaan prolongation trois minutes la bëgg nañ deux minutes mais da amul ndeysaan parce que kenn ku nekk amul a Boy Faye ordinateur waaw waaw dernier quart de finale poids lourd Boy Faye ordinateur Boy Faye not a नाटक बॉय भाई arbitre lan la wax ku muy jox victoire ku muy Ordinateur lay jox victoire wala eh Ordinateur jàll na. aca arbitre sifflé na première demi-finale diggante Biram Mbissine Sène ak Toubacouta Biram Mbissine à droite Toubacouta à gauche waaye sama grand la dégg saa borom Toubacouta la jot ak maa ngi koy siyaare waaw Massou production sama grand ndeysaan Seeku Baba borom Espagne sama doom day bëgg naa ko Toubacouta bi nga bisin ndeysaan bu nga mel demi-finale poids lourd fii ci Kaolack ndeysaan di bëggee sama abonné waa Zambro TV cent pour cent ñoom leen di wax ne gars bu leen fàtte di abonné wu di abonné di partagé di aimé duba ku tabbi ga bisin duba ku tabbi ga bisin wah duba sol na ko na duba sol na ko na duba sol na ko de ke he he duba ku datar bisin duba ku datar na bisin wala abid lo bi lu mu wax avertissement pour Birame Mbissine Birame Mbissine am na avertissement

aw na solaat na ko na Tubakouta pick up the scene. Tubakouta pick up the scene. Tubakouta jël na tànk bi jël na tànk Boucar Bissing jàpp na eh eh, eh. Boucar Bissing daan na Toubacouta. Adja Abe suuf waat na deuxième round diggante Modou Diam Terry la ak Ordinateur Modou Diam Terry am na benn avertissement loolu tax muy fonctionner. ndeysaan on a un plus avantageux ordinateur sol na ko la ordinateur sol na ko da koy génne waat saaku yi wala Modou jam dégg jàpp na mais en fait cër boobu mooy dox léegi ñoom nee nañu buñ amante ay millions ñu versé la ko te xam nga yooyu ñoom bu ñu waxee loolu ñoom xam nga ñoom xam nañ si digganteeg Cheikh xam nañ si digganteeg waa Sika xam nañ si digganteeg waa Kouwal xam nañ si diggante particulièrement ak Koungheul ñu ngi lay gërëm ndax. jam teegi ordinateur.

si seen njaay même si suñu njaay jaajëfal bu baax a xamante ne ku jëm bu taaru bi moom moo ko abal yaande yi boole ji ay siis yu bari ñu ngi lay jaajëfal beneen yoon Ibou Bambara promoteur bu mag

Thank you. deux temps ba jeex na de temps ba jeex na de ordinateur jàll na Bac Décision ak Mbédou Aja bleu blanc bleu blanc Léo Boye ak final जला लट्टा गुब्बड़े अपना देखो जला लट्टा गुब्बड़े अपना हे लो वो यार जला लट्टा गुब्बड़े अपना देखो एक गिटार वाला हे लो जला लट्टा गुब्बी देखो एक डान वाला हे बुला बुला बीटे के गड़े लो जला लट्टा गुब्बी लो जला लट्टा गुब्बा लो जला लट्टा गुब्बी लो जला लट्टा गुब्बी हे हे लो जला हे देखो एक डान हे लो डान लगो लो वो यार डान बुला aca be sibli waat na ndeysaan final poids lourd diggante Ordinateur ak Biram Mbissine Assane Ndiaye Ordinateur Biram Mbissine ndeysaan Ordinateur am na benn avertissement Magwit ah, Ordinator Bikam Bisil Orbit ah, Musul Bikam Bisil Ordinator tornado. Ayon panone jikilai Nesan Tornado bilang Let's tayo bigan mesin Kesan Sanos Kesan above the fox Kesan above the fox jël na làmb ji Bébé Bismi jël na làmb ji